ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر المكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر المكد السلام عليكم بوكي tey la àllarba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ndey koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñetti fan ci weeru mars ci atum ñaari junni ak nit ak benn fukki fan ak juróom-ñeent bokkul ci lim yu fatt yi lim bu rafet la manees na cee wat wala daloo ci wala takk ci ab sëy wala yeggale ko ca wala sanc ci kër wala tàmbali ca dara ak yu mel na ñoom bu dee bisub àllarba bi liñ ci gën a taamu mooy ku ca daloo li ñu ci tere tere wattandi ko nag moom àllarba mooy ku ca watu wala ku ca sangu wala ku ca fóot wala ku ca tàggoo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 jàpp bi daal koy tontu daan na ko waaw daal di saxal ne moom moo defoon bàkkaar yooyu ba sax yëg yëg ci boppam ak alku sunu boroom xamal ko ne ko ni ma suturaale woon ci àdduna ba kenn yëgu ko noonu laa lay jéggale tey jii xaddis bi Buxaari yi moo ko nettali mën